ay pères de famille ak ay mères de famille ay jeunes yo xamanteni ñu ngi jëm vers le chômage et c'est une chose que xamanteni ni mënon nañ éviter ci waxtaan parce que wolof dafay wax naan réeroo amul ñàkk waxtaan ay ak lu mënti mënti am rek àddina loo gis dafay rafet am na ay jëfin yoo xamante ni xajul ci ay doomu aadama yuy dund en société rawatina nga koy def koo xamante ni start-up la entrepreneur la koo xamante ni la il est parti de rien nekk un journaliste góorgóorlu ñafe ba teg un groupe de presse une une une agence de communication am ay aspirations politiques kon kooku dëkkam rek ko tax a jug ak loo mënti jote ak moom yaakaar naa ne même boo amee yoo koy def war nga xool par parcours am war nga xool ñi mu boot nga koy soog def lu métti lu ñu la nak lu ñu la lo xamante tout le monde nous appelle de de de partout cette euh, situation bi nu mu demee kañ ngeen di reprendre ba duñ leen saisir ba duñ leen tëj et c'est des questions yoo xamante ni amuñu ci benn réponse parce qu'on ne sait toujours pas de quoi demain sera fait mais li leer mooy nañu waxtaan ñu remédier à cette situation balaa muy trop tard parce que loo gis rek balaa muy ñaaw je pense que bu ñu waxtaanee dina dina dina dina dina rafet